wa sallallahu wa sallama ala subdatil akwaan wa kaabatil arwaaxi wal abdaan sayidina muhammadin zubdatil akwaan wa ala alihi wa sahabatihi al acyaan wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi alfurqaan mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew gannaaw bi ñu leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak santam ak fu mun di nekk ci àdduna bi ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ñi bokk bànneexal suñu xol ci jaar-jaaru sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo ëmb dundam ak liggéeyam nga xam ne liggéey bi mën nga koo tënk rek ci ñaar fukki at ak ñett mu fexe ba réussir ci ñaari mission yi ko yàlla jox mooy àdduna ak àllaaxira ba benn journaliste bu américain wax na ne da doon lim téeméeri nit ñi gën a réussir ci àdduna nga xam ne seen àdduna dafa réussir waaye ci biir téeméer yooya Seydunaa Muhammad la jël ne mooy première koo xam ne mooy ki gën a réussir ci mbiram àdduna waaye waaye tamit ak mbiram àllaaxira ba mu jël téeméer yooyu kenn te ko sax duhut jullit kon loolu lu jafe la te loolu lépp mu ngi ko réalisé ci ñaar fukki at ak ñett dundam bu barkeel boobu nag nga xam ne boo ko doon tënk juróom benn fukki at la ak ñett mu defar ci àdduna defar ci àllaaxira mag ñu baax ñi dañu ñëw di ñu nettali jaar jaar yooya rawatina nag koo xam ne turandooram la niroowaaleem la soppeem la di maam xalifa ñes nga xam ne daana bàkkoo ne yàlla baaxee na ma ma dëppoog yonentu yàlla muhammad ci tur ñun ñaar ñëpp muhammad yàlla baaxee ma sama baay dëppoog baayam ci tuur ñun ñaar ñëpp suñu baay abdallah yàlla baaxee ma sama yaay dëppoog yaayam ci tur ñun ñaar ñëpp suñu yaay sayyidatuna amina waaye yàlla baaxee ma ma dëppoog moom ci bisab juddu ndax moom ni ñu werantee ne ajjuma la juddu man tamit ñi dañ ne ajjuma laa juddu ñi ne altine laa juddu waaye maa ngi dund ak yéen waaye yàlla xamal na ma ne altine laa fi bàyyeekoo comme ni fi Seydunaa Muhammad bàyyeekoo altine loolu nag may la goo xam ne gu rëy rëy la moom nag bi mu ñëwee dafa fekkoon ña ko jiitu woon ci ay baayam ak ay maamam daan gàmmoo téere yoo xam ne Ahmad Shawqi moo ko liggéey yi Muhammadul Busiri yu moo ko liggéey léegi nag moom ba mu ñëwee rek mu xuus ci lefam siira bind ci loo xam ne kenn mënu koo dindi ku ko liir nga ci dollee ko waaye doo ci mën a dolli dara léegi nag jëmale ko ci dund sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba rek la bàyyam bàyyi nag téere jàmbur yooya daan wax ne kuy wàlliyaam sa kër a tëggul li def ci sama dund sama taalifi doom muhammad ibnu abdallah ibnu amina lay gàmmoo gàmmu na ci fukki at moom alaji abdoulaye ñes ba daana bàkku sax moom alaji abdoulaye ñes ci bàkku sant yàlla ne sama doom muhammad ibnu abdallah ibnu amina wax na muhammad ibnu abdallah ibnu amina mu mag ma mu daana wax ne sax yàlla may na ma lu mayut yonantu bi may na ma lu mayut saydi ahmad tijaani ñu ne ko ah alaaji abdoulaye lu yàlla mayut yonantu mayut ko cheikh mbaa dina ko mayeti keneen mu ne ah kay yonantu bi li muy foor foor amul doom ju ko tagg ci dundam ci góor wala jigéen mu fekkee ko di ko nettali cheikh na tijaani li muy foor foor yàlla mayut ko doom ju ko tagg wala mu tagg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam mu fekkee ko di ko fekk di ko nettali ndax yonentu bi doomam yu góor yëpp avant ñuy mësoor ci lañu génn àdduna su ko defee tamit nag Sidi Ahmad Tidiane yi ñaari doom yi mu bàyyi gannaaw ba ñuy nekk ak nekk fekk na Cheikh na Tidiane yi génn na àdduna waaye man tey maa mën a taxaw bàkku ne Mouhamad ibnu Abdallah ibnu Amina wax na Mouhamad ibnu Abdallah ibnu Amina mu mag ma ne ko nangam léegi nag ci la jël xasida bii nga xam ne li ma la waxoon topp lefam buusay ruyu ma ndax buusay ruyu dafa mooy ki def njëkk a def xam siya boo xam ne mi ngi ko defee ci baxru bu ñuy tuddee xafiif euh, tabaarakallaahu tagg ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam matlax ba nekkoon kayfa tarqa ruqiyakal anbiyaau yaa sama an ma tawalatha samaau léegi nag maam xalifa ñes ñëw jël maanaam même baxru ba jël tamit même xaafiya ba dugal di ci tagg maanaam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere bii bu maam El Hadj Abdoulaye fonkoon la man nga wax ne jamono ji ko maam xalifa taalif addem booba ci la El Hadj Abdoulaye Niass génn àdduna maam El Hadj seede ne guddi giñ ko njëkkee way bu fekkee gàmmu nañ ci benn at rek la ci maam El Hadj gàmmu dañ mu ne dañoo ba ñu way téere bi digg xasida bi ba toll ci buntab juddoog Seydouna Muhammad maam El Hadj wax ne néegam dafa leer yonentu ba feeñu ko foofa mu dee bi leer naññi euh, foofa la la départ daal di dem ca jéewu gàmmu moom moo garante ne te xasida bii di hamziya néew na ñu jàng ko ci géew ba mu jeex te géew ba maanaam gisuñu fa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral ñaareel fu ñu ko jàngee rek ci géew yi ñetteen yi jël yi danay bëri ndax nit ñi tamit xamuñu ay leer kon téere bu barkeel la man ngaa wax ne année bi mu jeex ci la ko année boobu ci la Alaaji Abdoulaye Niass génn àdduna mooy tolloo am shamsin di mille trois cent quarante kon bu fekkee gàmmu am na ci tamit benn at la ci moom Alaaji Abdoulaye Niass gàmmu njëkk loola di fukki at yee muy juróom-ñeenti at yee mu ngi daan gàmmoo ca laamiya ba nga xam ne euh, mooy naylul maraam matlax ba nekk jabat xifaaran biaadan la anisa biha salma ilayya wa duni bahru ahwaali léegi nag kii baa ngi nii xasida baa ngi nii xalifa nag maam xalifa Ñas da koo tàmbali téere bi ci taggi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu bëgg a xam yonantu moomu fu mu bàyyee koo mu door ñoo waxal ay cosaanam ci diggante ay maamam yu góor ñaak ñu jigéen ñi junj leen ba mu ca bàyyeekoo tudd xaddiyatu bu siiw boobu nga xam ne yàlla jagleeloon na ko maamam ji meññi baayam di Abdul Muttalib ci diggante moom Zamzam bi mu ci bàyyeekoo nettalil ñu jaar jaaru Abdallahi bi leer gi nekkee ci moom su ko defee na ko doon jigéen ñi sorteeg ñi daan nit ñi sonnee ca moom ba leer gi toxalu ci moom dem ci sayyidatuna Amina mu dem a dem ba borom leer gi juddu bu mu ci bàyyeekoo danañu jàngal bis ba mu juddoo euh, gannaaw ëmb ba ñaata weer la dii rek la ci aju door ñoo wax nag tamit ñan ñoo ko nàmpal bi mu juddoo wax ñu tamit ni mu daan màggee wax ñu timit bi maanaa ñaata at la am yaayam génn àdduna ak baayam génn àdduna ak maamam Abdul Mutalib mi ko yaar dana continuer wax tamit ñaata tukki la def ci ak ndawam dañ koy yónneeg dana continuer jàngal ñu kañ la takk soxna ak nu mu ko takkee dana dem ba nettali ñu ba ñuy tabax kaaba gi te bi amoon yéenee tabax ko ñu tabax ci dundam fanweeri atam ak juróom la ca xew dana dem ba nettali ñu ñeent fukki atam biñ koy yónni nañ lañ ko yónnee lu xew ci yonantu ga saa yi doon wàcceeg nu mu ko dikkalee dana dem ba nettali ñu wax yu ga mujj gi bi mu demee saar yi njëkk a wàcc mujj gi wax yu ga dagg dana dem ba nettali ñu ña gënoon ña ko gënoon a bañ di ko lor ak nañ sonalee woon nitam ña ba mu këy jox leen ndigal ne kaay leen ngeen dem gàddaay Éthiopie man mënumaa dem mais am naa ndigal yéen pour ngeen dem danañu wax ñaataa demoon ak gàddaayu Éthiopie ga ñaata yoon la dana dem tamit ba nettalil ñu euh, nattu bi ko dal gannaaw bi mu amee fan juróom fukki at yu manqué ñett embargo gi leen màkk embargo woon ñetti at jëndante wu ñoog ñoom jaayante wu ñoog ñoom duñ leen lebal duñ leen leb ku ci am yen bu diis di ko yenn wala nga koy yenne ko kenn du la yenn kenn du la yenni dana dem ba jàngal ñu bañ leen leen ci embargo ba ñaata weer lañ ci teg maanaam ki ko garanti woon di Abu Talib ak Sayyidatuna Khadija génn àdduna ci benn at ci benn weer ci benn semaine. dana dem ba nett lu ñu gënaa bi mu ñaar ba mu ñàkkee ñaar ñu mag ñii tukki gëm tukki woon ci ay nijaayam ca Taif ak xeer yañ ko tertoog ñam fa fekkoon ak nañ ko sonalee ak ba muy dëpp na ko jinne yi gatandoo ci place bu ñu tuddee naxlatu gëm tuub dugg ci lislaam danañu nettali tamit gannaaw loolu xéewal ga ko yàlla defal muy ak rañaani ak miraaj ba mu gisee ak boromam mu yëkkati juróom fukki julli jox ko ko muy wàññi ba mu des juróomi julli danañu ñëw nettali ne gannaaw bi rañaan gi passé ba mu indi julli sax màkka di ko di fa julli ñetti at mu jige door a am ndigal mu tolloog juróom fukki at ak ñett ci dundam ñu ne ko demal nga gàddaay madinatul munawara avant mu fay dem dana la wax ñaata nit la fa amoon ak jàkk yañ fa ndëkkoon a tabax ba muy dem moo kana àndoon ak la xew ci gàddaay ko yépp ba mu demee tamit jàkkaam jëm fa njëkk a tabax ak ba mu njëkkee dem ña ko doon yekkal xam ne boobu amagul dépense bu sax ak kër gam daloon di kër abi ayuba ak ñaata weer la fa def dana la ko jàngal ak peron jàkka ja ña fa daan fanaan dana dem tamit ba jot ñi atam ñaareel ma ca gàddaay gi mu jot ndigalal xare xare badar bi mu def ak waxut ak xare yooyu yëpp nga xam ne boo ko calculer dana mat ñaar fukki xare ak juróom-ñaar ñi ne juróom mbenn euh, léegi ak maanaam xare yi nga xam ne moom demul mais dafa yeble muy ay ñàngal nga xam ne mat na ñeent fukki xare ak maanaam juróom-ñaar yoo xam ne maanaam ñeent fukki xare kon ak ñeent yoo xam ne maanaam ay ñàngal la dafa yeble waaye demul dana dem ba wax la képp kuy mbokkam yonantu bi dana la wax buur yam doon bind leetar ñaataa ca jébbaloo ñu ko ca ñu ñu bañutoon dana la wax tamit ñi ko daan liggéeyal dana la wax ñu ko daan garde bu daan toog bu daan jug tamit di dox ñaataa koy séq ñu ko daan féetee ndeyjoor ak càmmooy dana la indi loolu lépp dana la wax tamit ña nekkoon këram di fobee rek dana la wax tamit ay gàtt ya ko yàlla mayoon ci diggante xar ak bëy waaye dana la wax tamit maanaam ganaar ak lépp lu ajoo dana la wax tamit jumtukaayu xareem ya ak mbubb yam daan sol ba ci pantalon bi mu amoon ak mbaxana yam amoon lépp téere bi danañu ko jàng kon téere bu barke la dana dem tamit ba desenel ñu jëmmi yonantu bi fotol ñu ko wax ñu na mu tolloon ci gudd ñaay yaatuwaayu xar ba nopp yaag loxo yaag bind baag biir ba par cër cër bu nekk maam xalifa Niass ko dessineel ci ci téere bi waaye tamit nag dana dem ba nettali ñu tënk feebar bi nga xam ne moo ko génnee àdduna ban bis la ko dugg ci weeru safar ñaar fukki fan yaak juróom ñett ñi koy tënkee kaxin mu tëdd feebar ba limab turam wa di taaha di fukki fan ak ñeent door a génn àdduna dana dem ba nettalil ñu ba muy génn àdduna lu mujj a bàttale ñaa fuñ ko suul ña na ko sang man ban ban ban maanaam teen lañu rootee ndox ma ko sang ak ñaata baag lañ jukki ñu ne lii mën na koo sang doy na muy juróom-ñaari baag lépp danañu ko jàngal danañu wax tamit ba ñuy gas pax ma ki mujj a ñu ne doy na kóota kóotaay bi doy na yaatuwaay bi doy na muy xusum di doomu abbas ku ko mujj a gas ñu ne doy na dana dem ba jàngal ñu bañ ko suulee ku mujj ca bàmmeel ba gannaaw ba ñëpp ñibbee di raatale bàmmeel ba di ca barkeelu muy bilaal di suñu mbokk di nit ku ñuul kooka mu ngi ci Euh, maanaam bàmmeelam Seydina Muhammad ma waral tamit diina ji mujj ci nit ñu ñuul ñi su ko defee kon nag téere bu barkeel barkeel la loolu mooy li téere bi ëmb su ko defee nag léegi ñu door a dugg nag ci matlax bi matlax bi dafa def maanaam damiru xitaab muy baatab anta te xam nga arab dañuy wax ne anta damir mu xaatab la arab du ko wax lu dul koo xam ne dafa jàkkaarloo ak moom moo tax mu ne ko anta yow sayduna muhammad mii ma jàkkaarloo bahjatun yaay taar wa bahaawu yaay leer lil kaw ni ñaal àdduna bi àdduna bi boo ci génnee woon taaru yonantu bi génnee ci leer ak sayduna muhammad kenn du ko mën a xoolati kon li fiy lu rafet yonantu lépp lu fiy lu taaru yonantu bi moo tax bu fi gis dara ba yéem ko ci taar oto la hôtel la dëkk la tabax la jigéen la góor la lu mun di rafet yonantoo ko abal taar ba bu nangoo taaram bi rek lépp ñaaw loo fi gis tamit muy mu leer lumière bu mu munti doon boo ci génnee lumière ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mujj lëndëm kenn du ko gisati kon lu fiy taar mooma lu fi lëndëm tamit mooma moo abal ñi borom taar yi seen taar ba ci aljaana sax moo ko abal taar aljaana ba bu set danañ renforcer taaram ba juróom-ñaar fukki junne yoon ak leeram nga te loolu lépp ñu ngi ko jëlee ci taarab sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak leeram nga moo tax maam xalifa ne ko anta yow bahjatun yaay taar wa bahaawu leer lil kaw na ñaal àdduna bi àdduna bi tamit ñu nekkee ci ay jafe-jafe dafa mel ni foofu la ñu nekk crise maanaam crise sociale lañu nekk koo laal mu ne du man jafe-jafe yëpp mu ngi ci nit ñi su boobaa tamit ki ñu mën a génnee ca jafe-jafe yooya ak ca lëndëm yooya ak ca xat-xat yooya mennam Seydina Muhammad rek lañ mën a jaar ci taaram mën a xuus ci leeram bu mën a génn ki jafe jooya waaye buñ ko bàyyee rek nekk ci lëndëm moo waral mu ne wata jallat uñeeku na xalmaawu lëndëm yi ñett bi nuuri ka sababu sa leer gi bi sa leer gi ñëwee rek ci la lëndëm ak ñett yëpp dàqu lëndëm ak ñàkk lëndëm ak réer lëndëm ak bokkaale bu taxutoon ak yonantu bi kenn du xam kon moo ñu génnee ci lëndëm ak ñàkk indi ñu ci leer ak am moo ñu génnee ci lëndëm ak réer indi ñu ci leer ak wéetal maanaam leer ak xam moo ñu génnee ci lëndëm ak bokkaale indi ñu ci leer ak wéetal yàlla kon mënuñoo fay yonantu moo tax mu nekk wata jallat wu ñeeku na xalmaaw lëndëm yi ñett bi nuurika sababu sag leer gi anta yow sayduna muhammad mi ma jàkkaarloo law laaka bu taxutoon ak yow lam yakun du xam kullu kawnin dara bu taxutoon yonent bi dara du xam aljana du xam safara du xam nit du xam malaaka du xam jinneeg njanaaw yeeg dara du ci xam moo waral yàlla wax na ko ci hadis qudsi yu ne ko xalaxtuka li ajli wa xalaxtul xalqa li ajlika am na riwaaya bu ne xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa min ajlika dama bind mbindeef yi ngir yow ku ma bi yowaay yow yow rek laa bind ngir sama bopp yonentu bu taxutoon nag moom kon moom rek la yàlla amal ngir boppam leneen lu dut moom yàlla da ko amal ngir jukkalee ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko tamit wala ma zara li ko noon du dañ saqaawu texe hadi an zawihi walis borom texe hadi bu taxutoon nag yow bu xam-xamee tamit ñi xam ñëpp safara la dem kon yow sooy nga ñu ñaari yoon maanaam yaa tax ñi am waaye ñaareel bi yaa tax ñi texe kon ci sag am ji lañ amee waaye ci sag texe gi tamit lañ texe zawi yi dafa bokk ci mbokki kaana yi nga jàngoon nga xam ne juróom lañ mbokki mbokki maanaam asmaawul xamsa nga xam ne akuuka abuuka amuuka zuujo ya nag di zuu maalin nga xam ne li gënoon a bëri ci naxu dafay daat ismu saahir waaye néew na lu mu doon daat ismu damir moom la maam xalifa nag jëfandikoo fii ne wala ma ko noonu du dañ ak ashaqaawa ak texe xadi an zawihi walis borom texe xadi leer na min ka tukkeekoo ci yow al wujudu mbindeef yi leer gi nekk ci mbindeef yi yëpp ci yow lañ ko jëlee leer ak bët leer ak nopp gu neex leer ak leer ak lumière yi lu mun di doon yëpp ci sa leer gi la moo waral mu ne xattanaarat ba sàkku naa leerlu al anbiyaaw yonantu yi ca kanam mooy faaxil ji ñu ngi sàkkoo leerlu min maqaabi si daw ika tukkee ko ci sa jumi leer yi yonantu yi yëpp seen jumi ci sa leer gi lañ ko jëlee moo waral yonantu yàlla nooxin lam doon leeral nitam ñoom ñëpp ci ci ci ci ci leer ak yonentu bi la ko jëlee yonentu yàlla ibrahima noona yonentu yàlla moussa ak xeet waak nitam ñi noona yonentu yàlla suleymaan ak nguur ga noona kon ñooñe ku ci yonentu bi coupé woon leeram rek nga nekk ci lëndëm kon mooy séebu bi njëkk a tàkk su ko defee nag séebu bu tàkkati rek moom moo la taxal loolu moo fi nekk kon mooy mooy mooy mooy mooy mooy dynamo bu mag bi nga xam ne moo jox mbooleem secteurs yi ak fu ñu nekk courant moo tax mu ne ko sa stanaarat ba sàkku naa leerlu al anbiyaawu yonantu yi min maqa bi si daw ika tukkee koo sa jumi leer yi mu teg ce ne ko wallahum aji nekk la ñeexal leen ñoom yonantu ya min ka tukkeekoo ci yow kulluhum ñoom ñëpp laa wax moo gisaatu ay moo gisa bu la neexee tam nga ne wallahum aji nekk la ñeexal leen moo gisaatun ay moo gisa min ka yu tukkeekoo ci yow kulluhum ñoom ñëpp waaye lu ci mun di xam sa lottu na an am saaliha walis misaal moo gisa yooya asfiyaaw ñu sell ña lu nit am am balaaga lu nit xam-xam-xam mënoo nettali ba nettali maanaam li yonantu yi jële ci yonantu bi tamu abal leen ko seen moo gis ay Moussa ak Xedwa ak Suleymaan ak Korondonga yonantu yàlla Daawuda ak weñ gu ñuul yam daan yam daan lem comme ni ñu lemee yëree lépp Sayyiduna Muhammad moo ko ko abal xaqiqam lañ daan doxee waaye bu ko bu ko nangu woon rek ñun ñoo ñun ak ñoom ñooy xam kepp moo tax nag mu ne ko zahara feeñ na albaadu lenn min sifatika sa melo yi fii yim ci ñoom sa lépp xajut ci ñoom di waxul al kullu waxul kon sa lenn rek moo feeñ ci ñoom moo waral fahum ñoom anjumun ay biddiw lañ wa anta yow kaaw yaay jant bi kon fi jàngale na fi mbiram maanaam euh, xam-xam mooy almun nujoom borom xam-xam yi dañu jàpp ne jant bi moo abal biddiw yi leer moo waral fu mu ne nii bu bëccëg jotee bu jant bi feeñee rek biddiw yi ñi ngi fi ñi ngi nañ meloon lañ mel kenn déplacé wul nañ doon leeralee lañ leere mais dañoo dajeeg lu leen gën a leer moo waral bu demee ba guddi jot rek jant bi nëbbu su ko defee nag biddiw yi continuer di leer kon nag ñoom ay biddiw lañu woon bi jant bi ñëwagut ñuy leeral seen lëndëmi jamono waaye keroog ba nga xam ne bër set na jant bi ne danga di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog lañ suux ñoom kenn xamatul leen kon euh, nda loolu te terewuñ ñu ngi fi ba waaye yonentoo fi ne moo tax kenn gisatul leen mi ngi mel tey soo jëloon la sondeel nga taal ko ci lampe courant bi rek bu courant bi xasee ñëw rek leer sondeel dootul feŋati moo même boo ko fayut tamit jëru ko euh, dootul leerati dara dégg noonu la moo tax mu ne ko anta yow kanzul ilahi yaay ndàmbal yàlla wa zuxru yaay ndëxanteefu yàlla wal izzu yaay teraangaay yàlla looloo waral wastu mi da tëbbeef na am na amaawu xéewal yëpp min ko tukkee ko ci yow lu waay am ci xéewal ci yow la ko jëlee kon nag lii day jungi la la yonantu bi la yàlla ne woon kuntu kansan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa xalaqtu xalqan ay muhammadan fa bi arafoo nii kon nag nekkoon naa di ndàmb lu kenn xamut ba ma bëggee ñu xam ma ci laa bind sayduna muhammad ci moom lañ may xamee kon yàlla bu taxutoon yonantu bi duñ ko xam yonantu tamit mooy ndaxañ téef li nga xam ne moo jar denc li nga gën a fonk di ko denc ci banque bi wala nga denc ko sax ko porfor kooka tamit mooy yonantu moom la yàlla gën a fonk moom la mooy ndaxañ téefam mooy tedd nga timit tedd nga jim xam kenn xamu ko walillahi al-izzatu wali rasulihi mu door a rogaat ci jullit ña waaye tamit xéewal yëpp xatta cinq mille francs bi nga am sa portable bii nga yore sa nga sol yàllaa nga la ko joxee ci barke ci ci ci ci ci tëbbëg sayyiduna muhammad moo tax yonent daana wax ne allahul mu'ti wa ana al qasim yàlla yàllaay joxe mais man yonent bi maay séddali loolu nag yàlla moo ko defal ku xam rek yàllaa la jox waaye nag mi ngi jaarale ko leen leen am na sabab ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ko réeree mu ne ko anta yow yonent bi baabul ilahi yaay buntab yàlla ku bëgg a dem ci yàlla te jaaroo ci buntab yonent bi doo dem ngay sonn rek yow almurajja yaay kuñ yaakaar ki yaakaar ku dul yonent bi tamit da ngay am problème moo tax yaakaar anta yow sifaaw yaay jëmi saafara min addawaayil xulóob ci jàngoro xol yi xol yi jàngoro ji ci nekk muy rëy iñaan bëgg àdduna ngistal xiir ci alal yooyu yépp jàngoro la joo xam ne kenn mënu koo saafara ku dul nga jaar ci buntu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo ko defee rek yàlla saafara ko anta yow yonantu bi tamit kaasifun yaay aji wuññi wa muxiisun yaay aji xettali lil kar bi ci njàqare kañ in atat naa bu ñu dikkalee ba saawu tar dégg nga mu dellu ci kaasif ja wa daraawu ak lor lor mu dellu ca mu xiis ca ndax ku nekk ci tar-tar da bëgg ku la ko wuññil ku nekk ci loru loru da ngay bëgg ku la xettali kooka nag ki ci gën a gaaw mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam donte le hadis may bëgg a wax sax bi ci bëri ci borom xam-xam yi dañu wéru waaye bu wérut tamit maanaam lafzan wér na moom maanan mooy tawassalu bi jaahi fa inna jaahi indallahi azimun ku mel ni albani yi dafa ne hadis bi wérut mooy ne yonentu ne maanaam jot li ko leen ci sama daraja ndax sama daraja lu lu màgg la ci yàlla waaye même bu wérutoon ci wax tamit wér na ci maanaa ndax darajaam lu màgg la ci yàlla te ku ci xeet li ko yàlla xeetali la dégg nga su ko defee naa la amee na min ka tukkee koo ci yow alhuda njub zawahu borom njub bi fat li ci ngëneel na min sari nu bàyyi ko ci yàlla yu nii loxoo moo koy jox man yasaaw ku ko soob ku jub yàlla la jubal waaye mi ngi ko jaaree ci buntab sayyiduna muhammad sallallahu alayhi xam nga fële dafa ne kon innaka la tahdi man ahbabta fale mu ne ko innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon nag yonent bi mooy jëmmi njub joo xam ne mooy exemple ci képp ku bëgg a jub moom ngay xool moom ngay roy rek ba xëy jub kon kon ku am njub ci moom nga ko jëlee moo tax mu ne kon naa la xamee na alhuda njub ni nga ko tukkee ko ci sa woowu borom njub mooy faa'il yi waaye nag bi fat lin ci ngëneel min karim bàyyi ko ci yàlla de ci baax ak yàlla la jaar yu nii loo moom yàlla moo yow mii aw saa dénkoon min xablu ci njëkk aadamu aadamu siisan siisa jigéen ñi làkka ñeex la kay tatiiba ngir teer nisaawu jigéen ñi làkka ñeex la tan naa soxla kii da koo bëgg naay bu faayil kii bëgg ko faayil ñoom ñaar dañuy xëccoo ni saaw tuxtaar da ko bëgg naay bu faayil katib bëgg ko maanaam faayil ñu koy xëccoo koo ko ci joxte ba day baax na dégg léegi mu ne ko yow mii la aadama dénkoon chicha bul fàtte ne aadama moom nekkoon na fi gannaaw bi ñu ko wàccee ci aljana mu nekk ci kaw suuf waaye diirab li mu nekk ci kaw suuf par ñaari doom la daan am góor ak jigéen aadama mosta am jenn doom ñaari doom yooyu nag di góor ak jigéen duñu mën a sëy dañu leen i jaxaseeg ña war a juddu déwén ñu boole ko ke eh, maanaam ku juddu noonu ren kii takk kii kii takk kële léegi nag ci siisa rek ci la mos a jur moom kenn di kenn ñu ne moom xaqiqatul muhammad ya ba newoon ci aadama ci siisa la toxalu te loolu nag du luy war a xat-xatloo ci biiru yaayam moo waral maanaam bu ñëw nekk di kenn boo demee ci am na téere bu ñëw Seydil Hadji Malick ci xilaasam ba ne wa gayru siisi wa gayru siisa fa ma taatihi munfaridan xawaahu takrima nuurin xayra mustahimi su ko defee kon suy sa rek moo mës a ñëw di kenn moom moomu nag lañ dénkoon xaqiqatul muhammadiya moo waral moom kenn rek la moo tax mu ne woo moom siisu mooy siisa wasiw mooy kuñ dénk ki man mooy nga xam ne kaana nekkoon ak fardan di aji wéet xaysu kaana fa mu nekkoon ab naaw doomi tu aman di ay seex ba doom yo ñëwee nekk di ay seex par ñaar siiso mooy kenn ki nga xam ne moom kenn rek la moom la ñu dénkoon xaqiqatul muhammadiya bi ak wéetam nag ñaar tax na mooy ne moom lañ dégg xaqiqatul muhammadiyya bi waaye bul fàtte ne doomu aadama yi am na ko ci rey xaabil rey na xaabil fu ni kon bu fekkee dañu continuer ñaari góor a fi nekk ak génn jigéen doo am ku ko takk su ko defee tamit loolu bokk na ci hadaf yi waral tamit sii sa ñëw wéet waaye tamit yàlla moom ay mbiram kenn xamu ko sii sa mii nga xam ne moom lañ njëkk a dégg xaqiqatul muhammad bi bàyyi ko ci aadama kenn la waaye pourtant abdallahi mii nga xam ne moo juru sayduna muhammad féex la eh, maanaam loolu kon nag loolu la lañ la waaye toujours loolu boo ko bëggee dégg pour comparer ko mooy yàlla toujours la gën a tumurankere lay defal yonent bi xam nga jamono ji si aadama di am ay doom par ñaar booba seex tumurankewut ñàkk seex ay tumuranke waaye jamono ji abdoulaye tamit di juddu booba seex a tumuranke ñàkk seex tumurankewut moo tax nag mu defale ko ci ñaar yépp abdoulaye seex la dégg nga moo tax mu a ñoom ummuhaatun ay yaay lañu maa xaara fat mu suñoo fàggu xattu mukk san ban bàkkaar muxsanaatun ñu sangehu lañ lam tanwaa mosu leen a jublu fax saawu njaalo moo yaayam yi daal ay soxna lañ yoo xam ne kenn ku ci nekk da nga am jëkkër door a am doom waaye amul kenn ku ci mos a am doom te fekk amuloo jëkkër daanaka wax sax moom ne man daal maay ki nga xam ne maa wal dani min sifaahil jaahiliya maa wal dani ilaa nikaahul islam lépp loolu mu ko yàlla defal moo tax mu ne boo réeree askanam wa nas mu duurin caqaburus la fii simti isin mu nekk ci ràngam teranga wa faxrin ak ràngam puukare wa ulwin ak ràngam kawe min duuni xiis na taq ba jaw saaw bi diwu jaw saaw moo ko gën a sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni yonent bi askanam wa maanaam buum la gu ñu nose nii waaye ter ya mooy mooy teraanga ak tedd nga ak kawe moom mooy mooy mooy mooy mooy per ya ci aadama jaar ci siisa xayfaan malaayin axnu mutawassil ka jëwn ñëw wàcc ba ci abdullahi ma nga xam ne moo jaaral ko ci aminata mu indi ñu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam maam xalifa ne ko làkk aji nekk la ñuy xalla asluñ cosaan fi saajidina ci way sujjóot ña wa farun ak banqaas fi saajidina ci way sujjóot ña waxul woon ak kawe fi saagide ci way sujjoot ña àll waxul woon googu na xala kawe na bii ci xanaa faaw saxaaba yi kon dafa nekk yow taal yàlla tànnal na la ñett ñoo xam ne jaamu yàlla rek mooy seen jikko tànnal na la aslu maanaam ñi la ñi la meññ ci aadama ba ci abdoulaye ñëpp jaamu yàlla lañ yu nangoo woon a jaamu yàlla waaye yàlla tànnal na la furoo ay bànqaaf li ko dooree ci tey sa doom jii nga xam ne moo ñu indil sët yi fi nekk tey di sayyidatuna Fatima ñu judd surafaaw yi fi nekk ñoom ñëpp tey ku bokk ci yow rek jaamu yàlla buy nangoo jaamu yàlla waaye gannaaw loolu tamit yàlla may la ay xàndandoor di muy ay saxaaba yoo xam ne ñoom ñëpp tamit ay jaamu yàlla la ñu nangoo jaamu yàlla loolu la bëgg a wax dégg nga kon nag ñu ngi noonu moom la tam moom mooy bunt bu njëkk bi buntam ñaaree moom la wax ne wa juddoodun ñoom ay maam lañu xabar yi mu mubtada la muy xasaf zawa ibun ñooy jubb ya fil baraaya ci mbindeef yi kullu badrin bépp weer al anaamu mbindeef yi jamonoom ya istadaa way sàkk loolu leerlu bi ci ci ci ci ci ci ci weer woowu maanaam yonentu bi yàlla may na ko ay maam yoo xam ne maam ju ci nekk yaay sa sangab jamono kenn ku ci nekk Abdul Muttalib bi mu fi ne moom rek lañ xam waaye tamit koo limat Ismaayil ba mu fi ne moom rek lañ xam Ibrahima ba mu fi ne moom rek lañ xam kon moom yàlla may na ko ay maam yoo xam ne kenn ku ci nekk sa sangab jamono nga ko dend muur ko moo tax mu ne ko anta yow taaha yaay taaha ca turam yi la aminu yaay kuñ hóolu ka anta yow safiixul xalq yaay aji ramu mbindéef ya kañ lama lam tasox ba nga xam ne ramu sufaa way ramu kon taaha ca turam yi la tudd nañ ko ko ngir ñaari yëf ñii nañ leen bi mu demee di rañaan yi ba war a yegg ci péeb yàlla ba dañoo mel ni kuy taxaw di xaw a arrière naan ni yàlla ne ko taa ah, dëggal sa tànk yi nga xeg si yow bokk ak Moussa Moussa ba mu yeggee ci péeb yàlla bi dañ ne ko sumil sa dàll yi faqlan alayka innaka bil waadil muqaddasi yow nag xegsil ànd ak sa dàll yi ñee na ngeen ne déedéet taaha yonentu daraan naafi la guddi ba benn tànk bay métti mu galgal ko ca morom ma yàlla ne ko déedéet taaha ma anzalna alayka alquran dëggal sa ñaari tànk yépp ci kaw suuf di julli ndax wàcce wuñ alquran ci yow pour nga sonn kon ñu lañ ci wax waaye taaha boo ko siifuree mooy tolloog li ma fukk ak ñeent waaye li ma fukk ak ñeent tamit mooy badru weer yi boo xam ne fukk ak ñeent lañ ko tuddee badru leeraay googa tamit gendee ko nañ ko tuddee ko yonantu bi amin nag waa màkk ñoo ko tuddee booba sax ñoom gëmuñu ko waaye kenn mosu koo dénk kàddu mu senn kenn mosu koo dénk xalal mu saaw bañ mujj ñoom liñ koy bañ bañ seen am mooy yonantoo nekkoon seen banque luñ am lu ñu dénkaane moom la koy jox moo tax fa keroog ba ñu gàddaay yonent bi ci ak maandoom liñ koy bañ bañ ba génnee ko dëkk bi dafa jël àll yoone ko fanaanal sama lal bi sàngoo suma mbàjj mi boo xëyee nga jël yóbbante yëpp dénkaane ko jox ko seeni borom door maa fekk ci yoon bi kenn du yonent bi waaye gis nga ko tamit mooy safeexul xalqi boo liggéey yowmal xiyaam ba ñëpp tiit dem ci yonontu bu ne mu ne nafsi yi ci aadama la ñuy njëkkee wàcc ci yonentu yàlla noox mu ne sama bopp doy na ma ibrahima dem ci Moussa ba ci Isa mu dooruñoo tegtal yonent bi yonent bi ne ana laa maa ko moom léegi nag jug commencé kabaar jël jëham bu sell ba sujjóot ko ci biir kaw suuf jibril ne ko sa borom nee na maanaam irfa rasaka sal tuuta tasfa tusfa maanaam laajal ñu jox la rammal ñu ramm loola loolu laaj jox la ko foofa moo jug na commencé di ramm ñu defar dossiers yi ci xisa boo xam ne gàmmukat yàgg nañ ko ne seen jëru taxaw moo tax mu ne ko moo tax mu ne ko lamaa lan tasfa sufahaaw ñun yaakaaroon ramm bañ joxee ngànte yow la ndax dem nañ ci aadama mu ne nafsi yi ñu ñëw ci noox mu ne kenn ku ne waxee la bi tax kenn garab gaa noox ne man dama saboté woon ab xaj yonentu yàlla ibrahima damaa waxoon ñetti kàddu gi dugul dëgg te yon doon isa yëpp dëgg la sax dafa xiir rek yonentu yàlla isa man mi nit ñi topp di ma jaamu maa ëpp problème ñëpp léegi nag kaay ma tegtal leen kële ba tegtal ñu yonentu bi ñu dem rek boo moo taxaw mu jiramu ñu dégg soo ko réeree najlu abdullahi mooy doomi abdullahi ja najlu ak ibnu benn lañ euh, yëpp doom lay firi waaye li ñu wutee najlu arab du ko doom ju tedd ibnu nag naa nekk doom ju baax naa nekk doom ju bon waaye najlu moom doom ju baax rek la a doon soo ko réeree ibnu saybata mooy doomu saybata ja minhum bokk na ci ñoom xaasimul juudi xaasimu tabema ak tayibu mooy ku teey ka miataaw mooy joxe xakkoon ba kon ñii ñooy ay maamam abdoulaye ko jur abdoulaye saybatoo ko jur saybatu moom tuddee abdul mutalib ndax moom bi mu juddoo digg béjaaw ba dafa bé digg bopp bi dafa béjaaw yaay ja ne ko laqad sadaqa abuka xiina samaaka saybatal hamdi sa papa wax na dëgg moom mi la tëddee woon saybatul hamdi ba jaaw buñ sant bi su ko defee ah, saybatu moomu di abdul mutalib hashim a ko jur di hashim turam moo doon omar omarul ula hashama sarida li qawmihi wa rijalu makkata muslimun ijab waaye dafa baaxoo woon tabe di lakk ay yàpp di defar ay mis wi di ko jox nit ñi taalibe yi ñuy lekk ñu mu tuddee ko Haasim Haasim mooy tekkere lakkatab yàpp bi moo tax mu wasafele ko ne mooy Haasimul juudi tey bu mooy ku teeka miataaw mooy joxe akon ba bokk na ci maamam suma badrul bi topp weeru màkka wa kooku mooy Abdul Manaaf kooku moo jur Hashim wa Qusay Qusay ca ca maam ya bokk mooy firi ku sori rek dafa sori woon ay askanam mu ngi mel ni ku dëkkoon euh, Sénégal maanaam Sénégal dem ba nekk far nekk Amérique dafa wutee ji wërsëgam kon moom wërsëgam dafa sori woon moo tax ñu ko Qusay yi kilaab ca maam ya la waaye du turam dëgg-dëgg da daan rëbb bi rëbbukat la kon di ànd ak ay xaj rek ñu far tuddee ko kilaab ñii ñëpp ma wax la nu jabaawuñu tedd lañ dégg nga muratu muratu ca maam yàlla kaxabuhum seen kaxab ma ca maam yàlla kasaa naka noonu lu ayu ca maam yàlla xaalibun ca maam yàlla tuddul noonu sax dafa daan yàgg xare ci di di gañe rek ñu ne tuddee ko maanaam xaalib su ma fiiru topp fiiru tamit ca maam yàlla ñi ñëpp ma limal la kuramaaw ñu teet lañ ay hum kuramaaw maalikun maalik ca maam yàlla nadruhum seen nadar ma ca maam yàlla kinaanatun kinaanatu mubtada la minhum ca maam yàlla wa xusaymun xusaymu mooy xusaymatu wa mudriku ñoom ñëpp nag surafa ñu tedd lañ su ma ilias topp ilias baxduhu nekk na ci gannaaw ilias mudrun mudar mooy mun tuddee mudarul xamra su ma nisaaran topp nisaar maadun ak maat ca maam yàlla neex ma baax na walaaw toftale gi ma ko toftale man maam xalifa suma addunaan topp addunaan ca maam yàlla bittifaaqi ci dëppoo borom xam-xam yëpp walakin li fi nekk baax dafoo gannaaw addunaan xatta xaala fa wutina an baawu solay problème mi ngi ci nekk diggante addunaan ba ibrahim foofu am na werante rawatina diggante ibrahima ba yonentu yàlla aadama dégg nga waaye ñii ñëpp basaroo bégal nañ xaw moom seen nit ña bi kuli samaanin ci bépp jamono bi ko ci yow ñii ñëpp kenn ku ci nekk ku ci dox sa balaa jeex rek nga ne ah yàlla da dénk nañu ab sët boo xam ne dana ñëw suñ gannaaw kum dajeg ci yéen na nga ko màggal na ko fonk moo waral tamit waxtar sara bégle a bi ko ci anbiyaaw yonent yi ni la sa maam yi puukare woo di daan bégal seen nit ñi ci yow ni la tamit yonent yëpp bégalee seen nit ñi ci yow yonent yàlla Suleymaan def na ko ba muy dox ba ci fii mëddatu mun a war a nekk muy ab àll mu ne yee fii ma taxaw de mooy kër a gàddaay ak yonent yi mujj ci yonent yi gaayam mi ne ko suñ digganteeg moom ñaata at la mu ne leen junnee xat la à peu près kon kon wax na ko yonentu yàlla wax na ko moom sax da ko wax ci alquran nettali ko wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu kon ñëpp a dégg la ci ñoom mu waral maam xalifa ne man nag kon wàccee naa sama jamono mais ni ku la passé ku la jiitu di la bégal manti ne marhaban basharoo bégal nañ qawmahum seen nit ña bi kulli zamanin ci bépp jamono bi ko ci yow sa baay jaar fi jàppal ci aadama wàcc ci siisa wàcc ci xayfaan ak malaayin ak mutawassil di ñëw a ñëw ba ci abdul muttalib ñëw a ñëw ba ci abdallahi ku fi mos jaar ku ne yaa ngay bégle say nit ñee yàlla de dana génne ci suñuy ndigg sët boo xam ne asamaan ak suuf yëpp dañ ko nangul waaye nag wastabsarat sàkku naa bégle ba tey bi ko ci yow anbiyaaw yonantu yi ni la saw askan ci diggante baay ak yaay ya ak maam ya di béglee ci sag ñëw ni la yonantu yëpp ku ci liggéey sa mission balaa jeex da nga bégle sag ñëw def déclaration balaa sa liggéey jeex moo taxoon yonantu yàlla Suleymaan Seydi Ahmad Tijaani moo ñu ko jàngal mu ne dafa mos a tukki ba yegg tey fa mun a war a nekk ab àll la woon dara nekkul fa mu dajale nit ñëpp taxaw ginne nganaaw njanaaw yaag mala yaag topp ko mu xamal leen ne fii ma taxaw mooy nekk ëllëg daaru hijrati rasulillahi sayyidina muhammad fi mooy nekk rek maanaam gàddaayam mu jëg yonantu yi hmm. ñu ne ko à peu près fi mu ko waxee ak fu mu war a feeñee nu mu war a toll mun a junnee at daal mat na ko hmm. boo seetee ku mel ne yonantu yàlla Isaa moom da koo wax da yàlla yaxal ko ci alquran ne wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmadu kon amul benn yonantu buy liggéey sa liggéey ba muy jeex te avant ngay dem defuloo déclaration ci dikk ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waajuram yi tamit ci maam yaag bàyyi yaag ñi say jigéen ak góor kenn ku ci nekk tamit bégal nga say ñoñña ci ñëw ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam xalifa nag ne ko kon man mii tamit maa ngi bégal ci sa ñëw donte sag ñëw jiitu na sama ñëw waaye man wàccee yéegalaat naa sama bopp ba mel ni maanaam dama laa jiitu ci jamono di la wax ne la marhaban takkooxal ak yaatuwaay marhaban wàccel ci yaatuwaay wa ahlan takkooxal ak ñoñ wa sahlan takkooxal ak jàppandi bi xudóomin ci dikk goo xam ne fii yi nekk la ci sifaawu saafara lil kaw ni ñeel àdduna bi ndax yow boo ñëwee mbooleem euh, feebar yi fi nekkoon moo xam feebaru xol yi la feebaru yaram yi la walla sax mu nekk maanaam feebar boo xam ne crise la yooyu yëpp yow yaa ko fi mën a jëlee moo tax kon man maa ngi lay tatagal pour sëg ñëw baat la boo xam ne ñëw na ci xadis moom la yonent bi waxoon Xusaymata bi mu ñëwee di ko kii mu ne ko marhaban léegi nag ñu ne mooy tekki ne ko laqiita rahban wasiatan yàlla nga tajeeg maanaam yaatuwaay ak maanaam jàppandal gis nga tamit wax nañ ne ki ko njëkk a wax baatam marhaban mooy sëy ibnu ziyasan daa nga seetaan ay filmaam moom ñu ne nag mun naa xam ba mu ko njëkkee wax mooy biñ ko falee buur yaman la nekkoon waa Màkka dañoo defoon délégation biir délégation ba Abdul Muttalib ma nga ca xoon mu demoon nag booba yonantu bi kiiragut juddoogut ñu demoon maanaam maanaam ndokkeel ko ca nguur ga mun naa xam daal keroog la leen wax ne marxaban waaye daal li wér biñ ko seetee mooy ki njëkk wax maanaam baata marxaban boo demee gi téere bu ñu tuddee taaj laaj nañ xalil ku màcc la ci xam-xamu naxu mu ne dañ ko nasab ci xasaf maanaam feal ja maanaam aqim la wala ansil rahban maanaam wala ansil marhaban su ko defee ñi xasaf fi'lu amar ja ak ak ja yëpp bàyyi fa maanaam baat ba dégg nga de maam xalifa ne fastanaara sàkku naa leer ak zamaanu jamono wan saaxa sori na xanu walis jamono kullu diqin bépp xat-xat waxamati daj na asaraawu xéewal yi mu ne sëg ñëw dafa ñëw leeral jamono xel yi xol yi xelaat yi waaye tamit gis-gis yi koom-koom bi naataange gi lépp ñu ngi leeree ci sëg ñëw waaye bi nga ñëwagul lëndëm rek a fi nekkoon ku man sa borom duna lu waaye xëppalee moroomam wan ko ko loolu lépp yaa ko fi jëlee xat-xat yan nit ña nekkoon di dund yore jikkoy bàyyi ma te yore maanaam jëmmi nit koo ci gis maanaam bàyyi ma di solo jëmmi nit la yaa fi jëlee loola moo tax mu ne ko kon bi nga ñëwee tamit xéewal yëpp daj na kàpp ñëpp léegi nag bunt bi tegu ci mooy bunt gasak maanaam abdul muttalib ci teen bu ñu tuddee zamsam abdul muttalib na ku bari tur la waaye turu dëgg dëggalam moo doon shaybatu boo gisee ñu koy tuddee abdul muttalib maanaam muttalib moom moo demoon jëli ko ca réewi saam togg ko ci gëléem ga mu rafet lool fu romb gaa yi xool ko nang bëgg ko sopp ko lool ba bu taxawutoon ñu nangu ko bu bu wane woon na tamit sama doom la ñu dal ci kawam ndax dañ ko ko añaanee fuñ ko wax rek mu ne kii sama jaam la te ñoom na bu newee sa jaam duñ la añaan dañu wax ne yàgg-yàgg danga koy jaay léegi nag di wax duñu wax ne sama jaam la man mu talib nga xam ne mooy rakki baayam moo ko jëli ji woon baayam génn àdduna moo tax ñu mujj tuddee ko maanaam abdul mutalib jaamu mutalib bi ci xisa gudd moom mii nag bi muy avant muy judd lu yàgg a yàgg fekk na sam Euh, sakk na samsam boo seetee ki ko njëkkoon a gas mu mu ball sam-sam ballee ci moom moo doon ismaila ci xisa bu gudd ndax moom la yaayam nekkoon màkka waajuram gu tedd wa sayduna ibrahim sancal leen fa ndax ibrahima ak góor ak ñaari soxna la woon benn soxna ba nekk fële ca Palestine di maanaam saarata benn ba nekk fële ca màkka waaye saarata moom di ab aawam moo ko takkaloon bi maanaa séet bi ne ko comme maag yow yàgg nañ mënuñoo am doom damaa bëgg rek maanaam may la am jaam bi yàlla mun naa dogal nga am ci doom may na ko ko muy Haajara yàlla dogal na am na ca doom waaye jigéen bu la utalee ji tamit du ca du ko mujjee xol bi am na fiiraange ci doom ji xajatut faak moom mu ne ko génnal kër gi foo man di yóbbu sa jabar ji yàgg moom yéen a xam ak sa soxna si ak sa doom ci la dem nag moom ba fu màkk nekk tey mu nekk ab àll maanaam mu sancal ko fa bi mu ko fa sancalee nag euh, bàyyi leen fa ab yóbbal ak ndox ne leen nag maa ngi delluwaat seeti sama soxna sële Haajara daw la ngaa ma ko ne ko dëkk bi lëndëm na di fii kon sax mi ngi nekk ab àll kenn nekkut fi yóbbal bi bu jeexee nu may def ku la sant lii mu ne ko yàllaa ma ko sant mu ne ko kon demal yàlla mi la sant lii du ma sànq ca la dem nag mu toog di muñ fi nga yëgee na jigéen gu toog muñ lu ne mën na ko am toog na muñ fa waaye ba muñee lépp fekk na ko fa yóbbal ba jeex na ndox ma mu commencé na di bagante di bàggante ñaari doj yi safa ak marwa bu dawee ba ca kaw mu yéeg seen ba xam dana seen ay gawar yu ko mën a xettali mu jigi nag ci la seen gawar ñu ñëw ñu ne ko ah ñun de dañuy bañ li la dal dal ñu ndax yaa ngi ni ñàkk ndox ñun ñu tamit am nañu ndox waaye su ñu jëm dafa sori dañuy ragal bu ñu la ko joxee ah, ñun tamit li la dal dal ñu mu daw lu mat juróom-ñaari yoon ndeysaan bu ñëwee ba fu mu teg xale bi noonu rek day baagante diggante yi ci lañ monte ñaari lamp yooyu nga xam ne bu njëkk jabalay ni axdaray ni la ñu woon waaye léegi ñaari lamp yu verte lañ fa lañ fa def jénga euh, léegi nag mu jàllal bi ko euh, di daw diggante ñaar yi di baagante safa ak wa ci biir loolu nag bi mu amee juróom ñaari yoon ba sonn ñëw di tëdd rek xale bi mar bay wéqu di sànni tànk yi rek ndox ma ball foofa mu ñëw nag moom tiit ne ko sam sam sam sam dalal moo waral dalal googa yonantu nee na bu ko waxutoon màkk yëpp géej lay doon hmm. waaye gis nga baat ba nam barke dalal jëm ko waxoon fëxët rahmatullahi alayhi ci jamonoom doon a jéem a branché ay tiwo màkk gi yëpp di bëgg a naan ci sam-sam hmm. waaye bañ monté ba fon na ñoo fa nekk hmm. ba ñu kii rek ndox mi nanguta génn foofa ndeke kon moom teen bu ñuy fekke la dafa waxoon mu dal foofa kuy dem yaay jëm jëlee ko foofu yóbbu waaye moom duut luy dem di fekki kenn kon léegi nag moom moomu nag Euh, moom lañ digaloon mu gas samsar te waxoon moom moomu maanaam moom moomu di ismaila euh, yaay ji waxoon loola di hajara samsam nekk fa maam yi di ca naan mu continuer nekk fa ba ni jur gu mag ñeneen ci xisa bu gudd gàmmukat dañ koy nettali léegi nag mm, benn buur falu fa bu ñu tuddee Omar ku bon la woon danañ dugg ci kaaba gi di sëy ak ay jigéen foofa mu jigéen nag bi ko gaa yi jàppee war koo folli mu jël koom wu réew mi ak wurus yaag kiwél yañ defoon ay or ak ni ko Seydi Hadji Malick indi ci xilaas bi mm. yëpp rek màbb ko ci biir kàmb ak sam-sam ñu sakk ko mu toogaat nag ak yu yaatu yu bëri sam-sam amatut moo waral ñu sax xamuñ ko moo waral dafa tëdd ba guddi rek moom saybatu ñu ne ko demal nga maanaam dekkil baratu mu ne baratu ah, mooy lan ñu ñu waxaat ko ne ko demal nga dem gasal mat mu noonu mu ne fan mooy foofa mu gi nag bi maanaam ñu ne ko demal nga gas fu ñu tuddee sam-sam mu ne asam-sam ah, te déggoon naa ko ca teen yee maam yàlla yu yàgg yàgg yàgg léegi nu may def ba xam ko ci lañ ne ko nag demal ci àll sàngam nga taxaw fa benn buuse dana dàq aw nagam bu ñëwee ba foofa rek nag wa day siisu bu ko rendee fa muy sotti si birit sa foofa nag sala teen mooy pindab teen ba léegi na ba mu ne damay gas sam-sam gars yi ne ko yow sam-sam ba muy am juddoogoo sa bàyyi sax juddoogul soo koy mën a gasee coow la bëri coow la bëri kenn kii waaye ba mu demee nag ba trouvé affaire ba dóor pind bi rek ca yi nag génnee ak dooneel ne ko doo ko fi gase mm. kon xisa bu gudd la moom lay maam xalifa junj si nii mm. gàmmukat yi danañ ci wax lu gën a yaatu mm. moo tax mu ne saybatun sayba ma ba mu sàkkoo xafran ngat li sam-sama ñeel sam-sam manaathu tere na ko sufahaawu ñu dese ña min xawmi ci nitam ña ne ko doo ko fi gasee de dégg nga de maam xalifa ne kañ lañ ko gasee mu ne kañ lañ ko ko tere mu ne xaasa moofu xuloon nañu ak moom li yam naxoofu ngir nañ ko tere min al xasri ca ngas ma waqaaloo ñu ne innaa naka ñun di suraka way bokkaale lañ ak yow bi ci teen bi duñ la bàyyi nga koy gat di ko tuutalee suñ kaw sa doom yi di ko tuutaloo suñu kaw doom yi soo lëggee sa yi di ko tiitaroo ci suñ kaw sët yi ñooy bokku teen bi de léegi nag coow la bëri booba nag comme ab yonantu amut euh, ci jóge jamono buñ amaan problème buxaaba la ñuy dem moo leen ni atte ñu ne am na benn buxaab bu mag bu nekk saam gaa yi def nañ délégation nag war faa dem waaye nag loolu njëkk loolu fekk na nag mu ne maam xalifa ne manooxu tere nañ ko ko lama baddaa ba feeñee tayu ismaila pindab yonentu yàlla ismaila ba xataa tabaddati ba feeñ sahnaawu mbañal ga moom daal feeñ ak pindab ismaila ba moo feeñal seen mbañal ga ñu ne ko maanaam doo ko fi gasee ndax dem nañ ba gis affaire ya léegi nag ñu ne danaa ko fi gas ndeysaanam gaa yi départ ab yonentu amut ñu ne kon léegi nu ñu def ñu ne kon nañ dem saam bu xaab ba fa nekk buñ demee mu àtte def nañ Abdou Moutalib départ na gaayam opposé ko ànd nañoo moom départ nañ jëm nañ ba ca digg àll ba seen ndox mañ yóbbu woon jeex ñoom ñu ne kon nañ gas bàmmeel yu tolloog nit ñi kenn kon dugg sa bàmmeel ku dee ña deeagut suul la ki mujj dee moom ñàkk ku ko suul moo gën ñun sang yu toll ñun ñëpp dee tamit yuy lekk ak yi Abdul Musalim ne leen man de damay dox ba dee dab ma waaye du ma toog mukk di xaar dee hmm. ci la war jële moom ga rek ba muy këdd rek tànk ba daal ndeyjoor ba mu fekk si tànk ba ca kanam rek ndox ma band léegi nag gaa yi mu ne ndox ma ndox a ngi nii naan leen gaa yi naan mu ne leen seen i mbuus ñu duy seen i mu nañ dem gaa yi ne ko dematuñ fenn yàlla mi la may ndox mi ci digg àll bi moo la may sam-sam ci digg màkka dematuñ fenn ba ñëwee nag kilifaay màkka yëpp ne xas leen dal seen kaw ne yéen a ñàkk fayda kii da leen a njabar nangam ak nangam wax yu nekk ñi mujj wax nag léegi nag euh, moom lay maam xalifa di wax nii ne wax xada xatte na almaa u ndox ma xiina faada waxtu wa bëbbay la dayi fa abdul mutalib bi falaatin ci àll lahoo ñeel ko neex ma baax na xadaaw xatte ba ndox maa leen xatte de léegi nag abdul mutalib am na lu ko naqari ndax damay def ñu ne doo ko fi defee dafa métti léegi nag ci la nitar ne su ma yàlla mayoon fukki doom yu góor yoo xam ne su ma meree ñi merandoor ak man su lu ma fi bëgg a def ku ma ku leen bëgg a tere ñi faat sa bakkan ni man danaa def lu kenn masta def ndax kon danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla may na ko parce que fukki doom ak ñeent buuñaa ko ay doom yu jigéen yoo xam ne mat nañu juróom-ñaar juróom-ñett léegi nag doom yooyu góor ya xaarif mooy taaw ba te bu muy wax ne di nisar benn doom rek la xamoon mooy xaarif waaye gis nga ko mu jigi doom yi ñëw moo jur maanaam ah, abdu abi lahab moo jur xijlu moo jur maanaam xaydaax moo jur maanaam mu xawam moo jur maanaam diraar moo jur maanaam abdu bata moo jur maanaam euh, kii moo jur ab Abu Talib euh, da moo jur moo jur moo jur maanaam euh, Abbas moo jur Hamsatu moo jur maanaam Abdullahi mooy ab caatam mi nga xamee ne bi maanaam moo jur Sayyiduna Muhammad waaye gis nga jigéen ñi tamit Arwa ca la bokk Safiyatu Atikatu Maymunatu Baydaawu di dem ñooñu moo leen jur kon moom li mu xam ci ay doom boo calculé diggante góor ak jigéen presque jege na ñaar fukk maam xarit noonu la ko defal buntu spécial ca kanam a kanam moo tax nag léegi nag bi ko yàlla maye doom yooya moo nisaroon lam nisaroon nag mu bëgg ko fàtte moom lay maam xalifa wax nisar ga nen maanaam euh, maanaam nisar ga mu ne nasara nisar na a naxara loj ga min banni ca doomam ya isa ma balaxoo bu jotee xasratan fukk wa neex ma baax na wafaawu matar ga mu ne su ma amee fukki doom su ma amee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag am na doom ya léegi fàtte na la mu nisaroon mu tëdd ba guddi li ko dikkaloon dara dikkal ko ne ko ah Abdul Muttalib matalal sa nisar gi de yaa waxoon soo amee fukki doom yu góor da ci rey kenn yàlla may na la fukki doom ak gu yu góor yu teg ak ay jigéen léegi moo waral maam xalifa ne fa ataahu dikkal na ko fii naw mi ca nelawam yaa aatin aji dikkee yu naat yi di ko xoo bi wa fayil ci matal wadaama sax na mi na coom ni daawu xoote ba mu ne ah ku gént lu la neex de mhm. da ngay saraxe ndax mu ñëw boo géntee lu la naqari saraxeel ndax mu dem sarax moom bu la sa sëriñ naxee tamit sa sarax du la nax mukk moo tax sëriñ boo dem mu ne la saraxeel nangam bu ko wéet di demal saraxe rek moom kay fuy lënt lënt yi amee mooy sarax ma ko waa nga indil ma ko nangam moom fa amal sikk waaye saraxeel moom moom du la génn mukk dana la xëccal wala mu dàqal la léegi rek mu xëy rek wuti am kuy mu rëy war koo saraxe maam xalifa da zabaxa ren dina alkabsa kuy ma ñu ne ko bëgg nañ lu gën a rëy ci yow am kuy mu ne xanaa ko gën a rëy de mooy aw nag maanaam dégg nga muy gëlem ndax booba nag ñoom baaxutoon ci ñoom moo tax yonent bi sax jamonoom am na lépp ba mooy nag euh, léegi xaru ba jaamoon a albut na aw yëkk laakin li fi nekk lay visa di di lekk ci lii xinaaw ak doyl ani zabi wala si diggal kañ ko rendi def na lépp waaye ñu ne ko daal ba bëgg nañ lu gën a rëy ci yow mu ne ah lu gën a rëy gëléem de xanaa mooy bakkan ci la woon ak doom ya wax soxna yi ne leen damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma mayee fukki doom danaa ko ci rey kenn jaamoo ko ko may na ma ko maa ngi nag dajale samay doom bind ci ñaari bant yi benn bi alxayaatu benn bi maanaam almawtu buntab dee bi nag ku mu dal ah dama lay rey buntab dund bi ku mu dee ku mu dal yow nag sowe nga wante ne na nag bant ba dal abdullahi mu ne ah dama doon dama maanaam dama doon essayé rek mu dalaat ko mu ne xéeni huma woon mu sànniwaat mu dalaat ko nag mu dal ci kawam moom lay maam xalifay wax ci nii mm-hmm. ne dara ba wante le na asahuma bantab dee ba fii ba nii ci doom yi an boole waaye wa bi abdullahi ci abdullahi kaana la xamee xaddaawu dogal ba la ba eh, maanaam xatte ba bi abdullahi ci abdullahi mu ne a ah, man dama doon essayé kara rabaamu xaat na darba wansale ga waaye li ma ci jaaxal kullu saalika képp ci wér yaati mi ngi dikk fii ci abdullahi maam xalifa ne wallaahu yàlla faailun aji def la maayu saaw la ko soob mm-hmm. léegi nag lu ci def mooy bëgg ko rey mu jàpp ci kii ba xëcc ko mu daanu xad araada nam mun a naxaruhu locc lawlaa quraysun bu taxutoona quraysun li ko noon maanaam mu ray ko waaye maanaam dañoo xasaf maanaam xabar ja fa lahum aji nekk lañ ñaaxale ñoom waa quraysun manhatun ak tere wa ibaaw bañ anu wali si ray abdoulahi li ñuy bon bon keroog wax nañ dëgg nee na ko doo ko fi rayee de waaye waxuñ ko ngir ngir ngir yàlla de waxuñ ko ngir moom tamit dañ ko wax ngir sowe seen bakkan mm. ne ko boo fi amee fukki doom ray ci kenn bu ëllëgee ñun ku ci amati fukki doom da rey kenn mu nekk aada suñuy sët di ko continuer te loolu baaxul day wàññi suñu askan kon nag léegi daal ba nga bëggee gas sam-sam ñu tere woon la yaa fi départoon ne yaa ngay dem Saam te bu xaab bu ñu tuddee sa jaaxu ma ngay dund ba léegi départatal ñu ñu dem fa seet maanaam moom mu seet maanaam ban yoon la ñuy jaarale dem nañ ko sa jaaxu moom lañ maam xalifa ne su ma dalatu topp tegtal nañ ko maanaam li fi daay ngir njot ga sa jaaxu bu xaa bu ñu wax sa jaaxu maam xalifa ne wax waxal aji néew la fii ci moom la xam ri gëñ naa sama dund fi daawu njot ga mu ne li ko njotee dafa tuuti bañ demee nag léegi sa jaaxu laaj leen waaw yéen yaaram yi lan mooy seen diyee ci ku rey nit ñu ne ko ñun de ku rey nit ci ñun fukki gëléem ngay ngay ngay joxe mu ne ah, kon nag dem leen ngeen teg fukki gëléem teg xale bi wantale bant bi bu dalee gëlëm ya ngeen rey gëlëm ya xam ne yàlla gërëm na ko bu dalee xale bi yokk leen gëlëm ya ñii dal ñi wantale mu dal xale bi ñu yokk fukk muy ñaar fukk mu dalaat mu dal xale bi indi fanweer mu dal xale bi juróom fukk juróom benn fukk mu dal xale bi juróom ñett fukk mu dal xale bi di abdullahi juróom ñeent fukk mu dal maanaam sayduna abdullahi ba ca téeméer ba nag ca la door a toxaloo ca Abdallahi door a dal gëlëm ya mu ne ah taxawal ma defaat ko mu defaat ko gars yi na ko bëgg fi nekk kii defaat lii doy leer na mu yëkkati ko defaat ko mu dal bi maanaa gëlëm ya mu defaat ko ba muy ñetti yoon mu dal gëlëm ya mu door a xam ne nag yàlla gërëm na mbir ya nag door a taxaw bëgg a rendi gëlëm ya loolu nag lay wax si ci lii moo tax mu ne xarabuha jaamoon nañ ko xasran fukk mi na nuqi ci gëlëm xasran ba muy fukk fukk ba muy fukk kay téeméer la maam xalifa na nag wa njëkk loola wa mi na sëf mi aji tukkee ko la ca bantab deeba imaawu ak junj naxwu jëm ca wàllu abdallah njëkk loola waaye nag xaraja génn na asax mu banta deeba nax waxaa jëm ca neeru gëlëm ya kañ xiina saarat waxtu wañ mujje mi atan di téeméer waxiye ñoom kulluha ñoom ñëpp kaw maawu yëkkatiku jagañ nañ fonk li gëléem nañ yoo xam ne seen jagañ yaa ngi ca kaw léegi nag nu xiran lojeef na ko waa xemoon na asibaaxu gar ya bihaa ca gëléem ya wa tayroog njanaaw ya wa xemoon nañ bihaa ca gëléem ya wal aqwiyaaw way way dëgër ña muy borom koom-koom ya xemoon nañ bihaa ca gëlëm ya wa duafaaw ñu lompa ñu amul dara nga tamit xemoon nañ tamit bihaa ca gëlëm ya dégg de léegi nag ñi ray ko amul tere kenn tan yaag njanaaw yaag maanaam gaynde yeeg bukki yeeg luy jëfandikoo yàpp rek ñëwal nga lekk maam xalifa nag xir gim xir ci yonantu bi mu ne daal liñ ko njotee dafa tuuti waaye téeméeri gëlëm bëri na waaye bëgg gim bëgg yonantu bee tax comme kii moo ñu andil yonantu bi mu ne ko buñ ko jotee woon bakkan yëpp sax man tuuti na ak man dégg nga de léegi nag bunt boobu jeex na ñaareel bi wala ñetteeli bunt bi moom lay wax mooy bunt denc ak abdallahi ci sayyidatuna amina ak juddug sayyiduna muhammad ak la ca daw ci ay xarbaax moo tax mu ne baabun fi tazwiji abdillahi bi sayyidatina amina wa mawlidi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma jara fi xamlihi min alxawaariqi wa mawti walidihi kon yi ma tudd moom lay maam xalifay traité la xew ca takk ga la xew ca ëmb ba ak la ca nekk ci ay xarbaax ak génn àdduna ak waajuram ba maam xalifa ne xiina daa waxtu wa leeree addiyaa u leer ga fii waji abdoulahi ci kanam ak maanaam abdoulahi fastaqat sopp na nisaawu jigéen li diyaa yi ñeel leer ga bi nga xamee ne leer ga toxaloo na ci abdul muttalib ñëw ci abdallahi Abdullahi rafet ba nga xam ne ku mel ni moom ci taar amut ñëpp sopp ko jigéen ñi nag mëntuñ koo muñati ñu commencé di ko sàkku moo tax mu ne raawadatu sàkku na ko an nafsi yi ci boppam zaatu xusnin jigéen kay borom ak taar waaye wa baa bañ na laahu yàlla xayra maa xadi saaw lu dul la ko soob ba mu demee rek benn jigéen gu bokk ci bani asad ibnu loxo saa moo ko fekk ca kaaba ga turam mooy xatiilatu ñenn ngeen raqiqatu ibnu bintu nawfal ñëw nag ne ko daal gis xar-xaramam ba leer mu ne ko man naa ci yow téeméeri gëléem yi la sa bàyyi joteexoon léegi léegi tama ànd ak yow wenn yoon abdullah yu ne tontuwut ko booba mi ngi ànd ak maanaam ba euh, maanaam baayam euh, abdul mutalib ñenn ngi ne ah, tontu na ko ñenn tontu nañ ko lam ko tontu mooy amal xaraamu fal mamaatu duunahu wal xillu laa xilla fastabiinuhu fa kayfa bil amri lazi tabginahu maanaam yaxmil karima irduhu yaxmil karimu irduhu wa diinahu mu ne ko waaw yow kat maanaam sàkk lu sàkk lu xaraam dee moo ma ko gënal bu dee lu dagan nag sama diggante mu amul frontière naka ngay sàkkoo mbir moo xam ne yaa ngi ko bëgg xanaa xamoo ko tedd dafa war dafa war a bi maanaa xaar de xam kon gis nga booba sax diine amagut waaye gis nga ñoom nanguñ woon def loo xam ne lu bon la maam xalifa na ñaareelu yoon bi saarab dox na abdoulaye abdoulaye xiina fa daaw waxtu wa njotee ko bi itaaqi ilaay ci gëléem ak yàlla ya neex ma baax na fi daawu njot ga booba nag wa daxadu xoo na ko ili waa gi jëm ci sëy kee moom foo la bëggoon kii moom sëy la bëgg ku ko xoo fataatun soxna jigéen maanaam jongama ju jigéen israat ko ba mu ko gisee walil jabini aji nekk la ñeexal maanaam ah, taar ba ñeexal na walil jabini aji nekk la ñeexal jëba diyaawu leer kon kooku nga xam ne moo ko sàkku woon wax naa la ko moo doon ku njëkk ka raqiqatu ñenn ñene mooy xatilatu ku ñaareel ki nag moom bëggoon sëy mooy fatimatu bintu marra moom ko moo ko bëggoon dégg nga léegi nag euh, ñoom ñaar ñëpp yàlla xeñ na leen ko euh, kee folo bëggoon ngir mu mën ko njoon moo tax sax gis nga bi leer ga toxaloo mu jaaraat fa mu xool ko ne ko man de manoon naa ci yow démb téeméeri gëlem waaye tey mënuma ci yow ñanab ganaar mm-hmm. ndax gis na ne leer ba nekkatu fa mm-hmm. maam xalifa ne ñaar ñi ko doon xëccoo yàlla xañ na leen ko yàlla durin xéemal wurus mm-hmm. asdaafo sadafam wa ibnatu wax bin mooy doomi wax bindi aminatu bintu wax bin daal moo mujj denc mu basalat kon yulli na moom ndaw sax ki bëggoon sëy xaddara diyatin kem diya fii ci abdoulahi laakin li fi nekk sii na ñoo ngee leet na am nu jàng na nayat na taar ba han sifahil bukaati walis njaalokat e ngoy firee mm-hmm. yàlla durin xéemal wurus af daafoofo sadafam wa mm-hmm. ah, maanaam sadafam ya imnatu wahbin mooy imnu wahbu wax ju rafet la foofu moom xam rek gën naa sama dund bi ne alyatimatu mooy kër ba alasma wu bay aji terewu ji xam mm-hmm. mu ne bi maanaa daal su fekkoon ne dafa jàppee maanaam yaayu yonontu bi ëmb ga mu jàppee ko muy mbuus ak wurus jàppee maanaam yonantu bi sallallahu alayhi wa leer ga muy wurus wa loolu nag maanaam mbuus toujours dañ koy def maanaam ci ca wurus wa ba yi nga xam ne jigéen ñi dañ ci denc seen or yi mu ne nag maanaam dencukaayu ooru wurus wa wa mooy maanaam biir biirab sayyidatuna Amina la ko yàlla mu jagleel xañ ko ñu la ñëpp maam Xalifa ne may nañ ko ko waaye bañ ko ko mayee asamaan ak suuf yëpp yëg nañ ca takk ga moo tax mu ne wasi waajun sëy ba xat su rabbi ga léef na kal a ah, kaw nu bi àdduna minu ci moom wasdahat ko woon na minu ca takk ga al ardu arduhu suufam sa mooy waa suuf wa samaaw ak asamaan te waa suufam sa mooy waa xijaas ñëpp maanaam mujj nañ kontaan ca kontaan ci lool guddi gi nga xam ne ci la ci la ci lañ ko den dénkee ko loola même aljaana sax dañoo yokkaat taal ba renforcer ko lépp maanaam gën a yokk pour tabaarakallaahu ci euh, ci ci ci ci màgg loola xamalat ëmb na bil haadi ci yonantu bi la daa chaabu chaabu abi talib lañ ko ëmbee ummun yaay mooy faayil ja lam tanal amul faqara puukare bi ta faqara puukareem nga moom yaay yooyu ëmb ko bi tax ca taa ni saawu jigéen ña bu yowmal qiyaama jigéen ña danañ bàkku nag ñi am ñi mokkal alquran ñi am ay waliyu ñi am ay xutbu waaye bu yaay yonantu bi bàkkoo rek làmb ja tas moo tax ñenn ngeen ne aw bidaarin wala ci kër toosaa boobu def na askane ko li wax bi ñeel wax bi abiha miy bàyyi yonoon muy bàyyam fa li haasa ngir lii daal ta xaalafa lahu te an baawu solaya fa am ñu ne saabu abi talib la su fekkee loolu la kon jël na ba pare ëmb door a xew su fekkee nag ca kër baayam la wëx bu su boobaa maanaam ca ngoro ga ci la ëmb bi xewee kon ñaar yëpp dana mën naa am yow ma lis nañ ne bi bisab altine waxoo moom fii rajabil fardi ci faj rajab gu wéet gi ndax dafa wéet walis mbokkam ya raat la yëg xam am laxaa xambamba bii ci moom saxaraaw saxaraaw sayyidatuna amina ci weeru rajab daal ca bisab altine ci la yëg ne daal dëgg-dëgg am na loo xam ne nekk na ci man yëg naa ko dégg nga di dafa beddeeku ñetti mbokkam ya muy diggi ak tabaski ak tamxarit moom kenn li wee matuñ ko ci rajabul fardi noonu la ko imaamul xastalaani yi waxee mu ne xiila waxeef na ne ala maanaam laylul arubati gudd ak àjjuma alxam lu ëmb ba fii ci moom la wali hada ngir lii taxaalafa la wuti araaw xilaat yi ñi dañ ne àjjuma la ñii ne altine la yonent bi léppam werante la moom daal ñaara ci amul werante mooy abdoulaye ko jur aminatoo ko jur loolu moo amul werante waaye loo waxati lu dul ak muhammad la tudd loo waxati lu dul lii rek xam na werante xasiya muur na anooru leer ga cëlmaay la fatara a gisante ne li baraaya ñeel mbindeef wala sa fi dét ci nekk imtiraaw werante ku de ko jàkk rek am na lu nekk ci moom wata daa daaw xoote ba min kulli saw bin tukkee ko ci bépp wàll bil bisaraati ci mbégte fii ci moom neex ma baax nañu daawu xoote ba ñëpp di xootante ne yëg leen ne maanaam gën ci yonantu na nga ca maanaam yaayam ëmb na ko maam xalifa ne boo tax na xëlëkat dee na min wëcc ngir njàqare xus nin ak tiitaan yaxale ci ëmb ba mi atam raatin ñaar téeméeri jigéen xakkaa nekk na ko xodamaa woy jiitu ña mujj na ba jógee loolu ñaar téeméeri jigéen ñoo dee ca saasa xii na lam yabqa ba desul xii na lam tabqa ba desul maratun jigéen min quraysin ci qurays sàmm foofale illa asaabaha ndere ba jot na ko mi ne ci moom daawu jàngoro ñooy paralysé paralysé nañ ne tension daani mënatuñoo dugati ñenn ñi la xamatuñ fu ñu toll moo tax na daal amul kenn ku feebaru ci bani quraysh ndax yaa ngi yaakaar nu yaa koy ëmb Euh, asraqa nga defam wala xamalat ëmb na ama xamliha atam ëmbëg sayyidatuna amina ci yonantu bi ku la xaw din bépp jongoma lu mu ëmb sakkaran góor fas daar dolleeku na bi bihi ci at ma am naawu doom ya hmm. xat mi yëpp doom yu góor la yëpp ëmb doom yu jigéen amut hmm. asraqa hmm. jolli na nooru lerga minhu ca maanaam ëmb ba is ngir kullu daarin bépp kër laa feeñ na fiyaa ca kër ya min daw yi ca leeral yonantu ba laawu gay aji melxat yi dégg nga futihaat hubbiloof na inda saaka foofa la jinaatu adnin aljanay biil wa badat feeñ na alxawraaw jigéeni xuuru xayni ya fii xulli yaha mbir mu ñu nekk seen takkaay ya gën a gànjaruwaat ci aljana ak jigéen ñëpp tamit gën a rafet makkata sax na a nooru leer ga tisaata juróom-ñeenti weer ci la ko ëmb woo moo xam lu mooy ëmb ba mit la maa yaxmilu kem loo xam ne dana ëmb ko maanaam xisaawu mbuus jumaana tëmba wurus maanaam istiaara bu rafet la fastanaara leer na samaanu jamono bi raw di ci tooli dër maanaam wa suuf rek tontóor wa faada bëbb na al anwaaru leer ya mu dellu ca raw kii ba rawdu ba mu dellu jénga wal anwaawu ak maanaam biddiw taw ya mooy jamxu nu yin gis nga ko lappun wa nasrun murattabun la waaye gis nga ko tamit euh, baada faxsin gannaaw beekoor amma daj na albilaadu réew yi jami'an mboole seen zahaba faagaagal na beekoor ba alxufu borom sang xendoo fu moom wasaawa gàtt ya dañoo xiifoon bay dee ca xàll ba mujj gi nag ci la lii ñëw di xéewal wa bi aami sururi ci atam mbégte wal fatiha atam hubbeeku samaw la ñu tuddee zaakal ama moomale ya saara mujj na as naa moom seen xërëm ya bi su lin ci toroxtaane woon nippi seen ak jattu maam xalifa wa isa jaa bu dikkee alxaqu dëgg fa hiya moom xërëm ya xabaawu pënd lay doon moo taxit ran na wonku na iblisu iblis inde saaka foofale ran nan ak wonku laa tuxaasihi niruwut ay mun jeeg sakk laaw bay aji yara dal lu mu jur dee nekk ci biir wu jëm ñu ne ko da ay gaaf na muy jooyee jooye iblis yaa ko gën a rëy mm-hmm. wa tawafaa génn na àdduna min ba'di shahrayni mm-hmm. moom nga teg wala yàlla koo yéemal min am lin ci ëmb min xam lin ci ëmb la day naa fa ñun mm-hmm. karimun bu tedd na tax xat tudd na min bisir ngir bëgg fii ci ma aj maa ajam ya ba ma ya kontaan nañ ca sax kam saririn bari na lal mu nakkasin bëri buñ jatt li malikin ñeel buur aji sa jàqaloon alkufra xéeféer yi lay sa fii di di nekk ci loolu imtiraawu werante mm-hmm. maanaam ku tudd sa lal rek sa lal ba daane la wax ak yow ne yaa xamadi ki tax ñu bind la bind ma judd forooguñ nga ne gong sama kaw maam xalifa ne wa tawafaa génn àdduna min ba'di shahrin gannaaw ñaari weer mm-hmm. lama xamaloon ba nga xamee ne ëmb na ko sahraawu sahraawu az-zuhriyata kay ko jug ba nii suhrata ku génn àdduna waalidul Mustafa mooy faa ji waajuru yonantu bi wa tayba tayba addaxat mujj na wa hiya moom tayba turbatun suuf la wa tawaawoog sax li badri ñeel weer wi dafa tukki woon ba foofu mu génn fa àdduna ñu suul ko fa kër taabixa kii ne kër naafixa ndeke foofu mooy nekk kër ak gàddaay doomam ji ba mujj foofu lañ ko suul wara at gis na wa atat dikk na niswatu jigéen di ko ndokkel si dégg nga wa at dégg nga wa xuurun ak xuuru ayn ya wa maal xuuri ànd nag jigéen xuuru xay ne mariam mariam asraw koy xeet ñëw di ndokkel si sayyidatuna amina wa atat ha dikkal na ko asiyatun asiya wali haatayni aji nekk na ñeel ñaari soxna yi mariam ak asiya saxaarun puukare wa bahjatun taar wa baxaawu ak leer wara at gis na moom soxna sa alaamal huda drapeau yi njub wali kulli ardi ñeel na bépp suuf bil bisiri ci samp raayatun drapeau bu mag wali waaw ak drapeau bu mag bu ndaw mhm. ñu samp ko di ndokkeel soxna su maam xalifa na nag li xew ci ëmb ba xaju fi su ma xayrul maskuuri topp luñ tudd min moo gisaatin ci moo gisa ajasa lottu na xan ihsaaya wali takk ko bu la xaaw ñu fasaaña mhm. kon lii mooy loo xam ne xew na ci ëmb ba